ay man Bour Gueweul nuyu naa la Masata Baye Ndiaye suma xarit suma soppe Abdoul Aziz Ala maa ngi laa nuyu mon ami ayca ayca nañ ma ko joxaat Fatim ñu joxaat la nañ ma joxaat li amoon sànq li amoon sànq <laughs> nañu jàmbantee mais Bour yaa kontaan bay wëndeelu ci fi mistela Fatim fi mistela Fatim ah c'est ëppalkat bu mag laa Fatim. tey ci stade bi yëpp. dëkk dama ruumal Fatim. noo ko waxoon sànq mu njëkk a tiso ma njëkk a njëkk a tiso beer. liisu. ay ku moom loolu Liss Ndiago ko moom. général Kayra bu moom. tey danaa war a tey doon kol la ñu ngi xeex Fatim. cooki ba Liss ko. Liss Ndiago daan na. xale ba daan na ko Fatim. Liss Ndiago moom. Général Kayra xanaa tey dinaa war a yëg tey doon kol la ñu ngi xeex Fatim. cooki ba Liss ko fa. Ah, Liss Ndiago daan na. Liss Ndiago daan na.